Bienvenue sur Salam Vision.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 di sant yàlla bu baax a baax itam di la wax ne fan yi sax dama jàppoon ne moom damay noppi rek laa bëggoon a def ngir xol bu jàq xol bu jaaxle xol bu tiit ngir dem ak sunu sëriñ bu baax boobee Cheikh Abdourahman eh, muy loo xam ni lu nu bett la te tiis lool ci noon waaye nag lu mën a xew du nu génn la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne innal ayna la tadma wa innal qalba la yaxzan walakinna la naqulu illa ma yurdi rabbana subhanahu wa taala Cheikh Abdourahman jëmm ju baax a ngi noonu jëmm ju sell ngi noonu jëmm ju maandoo ngi noonu ab murit saadiq mi ngi noonu nun danoo gane rek fekk ko ci meloom wii nii nit nit baax na ba tey waaye àggul ci moom di jëmm joo xam ni liñ daa wax ci gaa yu baax yu njëkk ya ci moom lañ ko gëme lu bari li ñuy wax ci sëriñ bi itam lu bari li ñuy wax ci sëñ bi ci moom lañ ko gëmee melo wi wi ko ñëpp xame mooy woo xam ne moom moo nun ñëpp naka jëkk ci lañ ko xam rek danoo feeñ rek gis ko mu mel melo wi muy ragal yàlla gu mat sëkk te maandu te te sàmm itam te laabir te toroxlu itam toroxlu toroxlu dayob toroxlu moom mosula jàpp ne ab sëriñ la loolu moo tax mus musta sax di génn di toog ñu ko ñu ko siyaare waxtu ne ku ko bëgg a gis da nga koy dab rek ci yoonu jàkka ja muy dem ba mu dëpp di koo xam ni itam dafa bokk ci ñi yonente bi doon wax ne al atqiya wal axfiya mooy ñi nga xam ne dañuy mat sëkk ci ragal yàlla akuk sàmm akuk mbaax ba noppi nag nëbbu mësula feeñal dara mosula wane dara lu may sëriñ bi di ko boo ñëwee ba toog fi moom boo ko soree sax mën nga koo am yëg-yëg bu rëy ci sa xol waaye boo ñëwee ba ba toog ak moom da mel ne ku toog sa morom moom nga fa fekk. di jeex ci Sëñ Tuubaa bëgg gi mu bëgg sëriñ bi de moom mësuma gis ku bëgge noonu sëriñ Tuubaa fee fee mu jëm yàgg naa wax ne yàgg naa wax ne bu demee ba taxaw fa kanam sunu borom benn yóbbal la fa am te mooy bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa te moom ak jaamu yàlla kenn mënu ko ci mësula a faat waxtu te li mu toggoo woon ci ay jaamu yàlla sax da nga naan nit attanu ko li ma gën a yéem ci moom nag mooy mësula a boppam melaw yi ñi ko xam ñépp xam nañ ne wenn melowee noonu danoo judd rek gis ko mu mel noonu ci mbaax ak ci sell ak ci sellal ak ci euh, jeex ci jox yàlla li mu moom ci moom li mu yellool waaye jeex ci sëriñ bi ak ci def ndigali sëriñ bi yooyu yëpp dañoo judd rek fekk ko ci waaye dem na ci mujj gi ba nit ñëpp jublu si ko waaye mësula soppiku ku ne xam na ne njëlbeen ga daana daana génn ci kër gi ba ci jullikaay ba te kenn eh, nit ñi boo daanaka doo dooñu ko sax yittewoo am na bés kenn ci soxna yooyu dëkk ak moom ginnaaw timis mu fekk ko fi mu toog nga xam ne boo xam ne ci suuf lañuy ñuy mu fekk ko fi mu toog di ko laaj sëñ bi ne ko ndongali ana sëriñ bi te boobu sëñ Abdourahmane lay waxal mu ne ko ndongali ana sëriñ bi boobu ginnaaw timis la mi ngi toog te boobu lu woyof la daa sol melow woyof googu nag mësta jug ci moom nit dana baax waaye léeg mu yëg ne baax na te loolu mën naa bañ a doon sikk waaye moom mosula yëg ne sax baax na wala doon na dara mos la nongu sax ku ko tagg mbaa ku ko wax dara am na bis sëñ sëñ sëñ sëñ ñenn ci raw dura yaaxin am luñ doon def bëggoon ko caa sargal ñu sàkkoon ci man nee naa bind dara ci moom loole ba ma koy jéem a bind damaa njëkk dem ci moom laaj ko waaye nunguma tontu benn baat ndax bëggul kuy wax ci moom yu dama noonu ma dem laaj feneen samay laaj ba àggal ñëw ci moom bëgg ko ko wan waaye nungu ko gis sax li ma li ma bind xam ne keroog da caa ànd la moom ne ma sëñ Mbàkke loolu daal moom ko dama bëggoon nga xool que li ci wérut nga xam ne wax naa ko ci ay loo xam ne aju na ci sa dund maanaam nga jubbantil ma ko mu ne ma loolu daal nga xam ne xoolu ko ba bisub tey ji jëmm ju mel ne Cheikh Abdourahmane daal moom moom moom wax dëgg yàlla man mosu mosuma koo gis waaw mag ñi ak téere yi yàgg yooyu nañoo nettali gaa yu baax waaye moom dañoo dund ak moom gis ko mu jëm joo xam ne dawut xewlu maanaam buñ la li ñuy wax ci li ñu ñuy nettali sëñ bi ne daana am ay weer te dara dugg ci gémmiñam loolu ci moom lañ ko gëmee ndax jëmm la joo xam ne maanaam mu maanaam li ko dal lépp ñàkk xewlu ak ñàkk naan moo ko ko teg daanaka kon jëmm ju baax a ngi noonu jëmm ju sell a ngi noonu jëmm ju jeex tàkk ci suñu borom bi ngi noonu jëmm ju jeex tàkk ci sëriñ bi bi ngi noonu dina wax ne nun ak sunu classe gi ñu ci bari mooy ki jeexital ci nun mooy ki nu sóob ci sëñ bi itam jàngkat yu bari moo leen bàyyi ci murit gi moo leen defi murit ndax dangay xam ne lépp loo xam moom xam na lu ko lu ko fukkute wala lu ko téeméer ba pare nag boo toogeek moom bu dul waxtu jàngale doo yëg na sax xam na araf te lépp lu mu wax ne na ci mbaaxuk sëñ bi la koy delloo moo tax keroog biñ koy ñaanal ba ne téere bi yiwam ma ne téere boobu de xam naa téere bu fees del la war a doon li mu am ci tuyaaba yaakaar naa ne ñëpp xaj na ci la waxoon ci sëñ bu mag ba ne laakin lahu xasanaatun laakin lahu xasanaatun kunna law qusimat yowmal jawa bayna ahlil xasri maxtaraqu loola ku ko wax ci moom doo juum dëkk bii nu ne mboolem kuy faqir fi ne xam na la ab liste la ci am mag moo xam ne dem na ba liggéeyatul sax dana laaj ndax am na lu muy yëngu ndax am na doom ju koy jàppale bu demee ba gis ne aaj na ndimbal mu dugal ko ci seen boobee waxtu wu ne mu leen di yónnee ay xéewal ak di leen taxaw boo masaa ñëw ne ko moom mësta wér am na ku ma wax démb ci ñu ko jege ne mës na ko wax ne ba mu xàmmee ba ba ba tey jii mësta fàttaliku bis boo xam ni yendu na ko ba mu jeex te amut lu koy metti ci yaramam yàlla ko natt woon ay wéradi ay mettit waaye fine boo ma saa ñëw wax ko ne dama soj rek wala nga jàmbat ko dara bala am jàmm yow dalaa wutali garab moom te waxtu day yónnee di la laaj fi boo ñëwoon wax ko ne ko dama wéradi dalay wax demal ci hôpital bi boo demee hôpital ba lu ñu la bindal ci ordonnance moo koy def loolu ñëpp xam nañ ko fi hôpital bi bu ñu la yebalee luga otom bi am na jamono yoo xam ne Louga daana fa def ñaari yoon ci ay bis waaye waa Louga itam lu ñu la bindal ci garab ak ordonnance lépp moo koy faj bu ñu la yebalee Ndakaaru itam lum métti métti ak lum seer seer moo koy def loolu moom mboolem fuqaraaw yi danga wax ne suñ dëkk bi ren yàlla nattoo nanu ñaar ñoo xam ni muy sëñ Moustapha Absa ak sëñ Abdourahmane fuqaraaw yi fuqaraaw yi dañ ñoom ñoo leen di njëkk a jooy suñ Mbàkke maa ngi jéglu bu baax jëmm joo xam daal moom li ma ci wax moom la ci ñëpp xam ku baaxe noonu te moom daa bari wet nit ki mën naa am xam-xam te farlu lool waaye ak taalibeem am lu ca manqué moom nag ak taalibe bi mu manqué wut nit ki mën naa am ak te wetu xam-xam gi manqué mën naa am ñaar ñooy ñaar yooyu yëpp it te diggam ak nit ñi ak ndimbal lim aaj lim lim dox diggam ak nit ñi am lu ca manqué waaye moom dëkk bépp boo gisee dëkk bépp maase keroog ñëpp rek jooy ko ñëpp rek mu mett ci ñoom kenn ku ne mu mel ne yow yow la demal mooy kenn ku dara dana amal njariñ sa njariñul bopp. moom nag dafa noppalu moom moom lay wër ku ko xam lam doon jànkonteel xam nga ne dafa noppalu waaye nag bàyyi na fi eh, faraax boo xam ni ah yaakaaruma ne dana gaaw a am ku ko taxawee lam daa jëmmal man boo mësaa am gan gu jógee bitim réew walla wala gànnaar wala dara bala ma am jàmm damaa dem yóbbu ko mu siyaare ko waaye ku ñëw ba siyaar ko dangay ngay bég yàlla defoon na ci moom jëmm la joo xam ni foo ko xoolee rek mu am jeexit jum def sa xol doonoon doonoon ko am sutura itam te mën a sagal nit bu bu ay nit jaaree ci ba nga yóbbu leen fa boo demee dina jox cër bu rëy jox yitte ju mag it ñi nga àndal yal na nu ko yàlla fayal